bismillahi irrahmaani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yu guddik tey gi mooy guddik fukkeel ci koor gi mooy fukkeelu guddi naafilak tey gi di ñanti rakka muy ñaari sëlmal bu ci ne fatiha benn yoon ayatul kursi yi benn yoon inna ansalnaahu fukki yoon ak ñaar ñanti rakka raka bu fatiha benn yoon ayatul kursi yi benn yoon inna ansalnaahu fukki yoon ak ñaar wasalaamaaleykum wa rahmatullah